dem doore ko ak vox populi moom mi xëy fësal ci xëtam bu njëkk tukkib nemmeeku bi nga xamante ni njiitu réew mi amaloon na ko ni ki dem foofulee ca diwaan bu Kër Massar mu mel ne nag kàddu yi nga xamante yëkkati na ko fa noonu li ko vox populi xëy fësal na dàng ci li nga xamante ni moom moo jëm ci xët boobu lee a na réew mi nag jàpp na ne daal lu jëm ci wàllu taw bi moom daal mënut arrêté li nga xamante ni moom moo di asamaan si noonu la ko xët bi nga xamante ni moo di vox populi xëy fësale ci xëtam bu njëkk ñeneen ci xët boobu lee di vox populi xëy na fësal ci li nga xamante ni moom moo jëm ci daan bi nga xamante ni rek daan nañ ko ki nga xamante ni moom moo fi nekkoon Euh, moo fi nekkoon euh, doomu njiital ki nga xamante ni moom moo jiite woon di IAAF di Papa Massata Diack moom mi le euh, ni ki démb nag mu ngi doon jànn ko way taskatu xibaar yi di indiwaat ab leeral ci daan bi nga xamante ni nag daan nañ ko ko foofulee ca diwaan bu Paris xët bi nga xamante moom moo di réew mi quotidien moom xëy fasalal ci xëtam bu njëkk fanweeri milliards yi nga xamante ni nguur gi eh, di njiite réew bu Sénégal fas yéene ko teg ci table bi doole nag ngir fësal ak wëyal li nga xamante moom moo di ñaareelu plan phase bi nga xamante moom la ñuy duppee eh, lutte contre les inondations ni ki démb la ko xamle foofu lay ca diwaan bu Kër Massar gannaaw ba nga xam ne nag moo fa doon dem ànd nag yenn ci ay jëriñ ak directeurs généraux ak kii ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay maire fare foofu le ca diwaan ba ñoo ne sax la fa yëkkatee ay kàddu nee na daal li nga xamante ni moom moo di Kër Massar nag danañ ko def ab département noonu leen la ko xam le nit ki démb foofu le ca diwaan bu Kër Massar tribune moom it xëy fësalaat ci xëtam bu njëkk ba tey tukkim ne meeku bu nga xamante ni njiitu réew mi amal na ko foofu le ca diwaan bu Kër Massar moom it mu ngi xam ne li nga xamante ni moom moo di njiitu réew mi jël na ndogal ngir génne lu toll ci fanweeri milliards teg ko ci taabal bi ngir daal fexee lu jëm ci ñaareelu pàcc bi bu jëm ci xeex lu wàllum euh, mbënd mi ñu mën ko amal foofu lee ca diwaan bu euh, Kër masar moom i leen nag di euh, président Macky Sall ni ki démbul amoon tukki nemmeeku boobu le lii di Tribune xëy fësalee ko nee na Macky un président à sec ñu dem ci xët bi nga xamante ni moom mooy xëtu national bi di le soleil moom xëy fësalaat moom it ci xëtam bu njëkk mesure yu nga xamante ni njiitu réew mi na ko ngir xeex li jëm ci wàllu mbënd mi foofu la ca diwaan bu Kër Massar gannaaw bi nga xamante ni mu ngi doon amal ab tukki nemmeeku ak saytu lu jëm ci zone inondée yi foofu la ca diwaan bu banlieue bu Ndakaaru xët bi di dakaar Times moom xëy fësalaat moom it ci xëtam bu njëkk lu jëm ci 766 milliards yi nga xamante ni nag ñu ko doon wax ni def nañ ko ci lu jëm ci xeexu mbënd mi ci atum jàpp 2022 euh, yi nga xamante ni moom la ñu dégmaloon fi mu toll nii sax ñaari at kese des ci li nga xamante moom moo di plan décennal boobule lii di xët bi Dakar Times dellusi waat na bu baax a baax fi nga xamante ni foofu la ñu dugal koppar googule ak la nga xamante ni moom moo ci des diiru euh, fukki at yi nga xamante ni moom la ñu nattoon atum 2012 jàpp atum 2020 ngir xeex lii di euh, mbënd mi enquête moom xëy fësal ci xëtam bu njëkk ki nga xamante moom moo jiite eh, kuréel gi nga xamante moom moo ngànk magistrat yu Sénégal eh, di eh, Souleymane Teliko gannaaw bi nga xamante nag lii di IJAP foofule dañ ko convoqué woon nag ngir nag mu am ab wuyu bi nga xam ne nag daf koy def foofulee ñu mu toll nii daal am na ci ñi nga xam ne ñoo di ay magi magistrat daal fi mu toll nii déggoowuñ ci seen biir ñenn ñi sax ñu ngi koy jàppale wante ñenn ñi daal moom déggoowuñ ci seen biir bokk na ci tamit yenn ci ay kuréel yi nga xamante ni ñu ngi koy jàppale bokk na ci RADDHO Ligue sénégalaise démocratique ONDS ONG 3 de ak Africom noonu la ko enquête xëy fësale ci xëtam bu njëkk xët bi di l'observateur moom xëy fësal ci xëtam bu njëkk lu jëm ci ab tentative de meurtre maanaam ki nga xam ne daal dafa bëggoon faat boppam leen nag la ko xëy fësalee ki nga xamante ni nag daal dafa bëggoon xaru ci li nga xamante ni moom mooy euh, ab tentative de meurtre noonu la ko meurtre noonu la ko l'observateur xëy euh, fësale xët bi di l'observateur tamit xëy na fësalaat ki nga xam ne mooy di Khalifa Sall mi nga xam ne daal euh, dafa woolu nag déposer ab convocation magistrat bii di Souleymane Teliko foofulee ca IJAP noonu la ko xët bi nga xam xamante mooy di l'observateur xëy fësale ci xëtam bu njëkk leneen ci xët bi nga xam ne libération moom it xëy na ko fësal moom mooy ab um, njuuj njaaj daal ak wuruj bi nga xam ne dañ ko uh, jàpp ne am na foofu lee ca uh, diwaan bu port autonome bu ndakaaru ab scandale sax lañ ko tuddee gannaaw bi nga xamante ne nag njiit la di directeur général bi daal uh, dafa jox li nga xam ne moom moo jëm ci gàlluwaay ak yorinu lii di parking foofule mu mel ne nag dafa am benn privé bu mu ko jox mu dudd AGS mu mel ne daal ñi nga xamante ñoom ñooy liggéey foofule ànd ci lu ni mel loola tax nag ab rébellion maanaam ab xiiroog ngaayo euh, fi mu mu ngi koy nemmeeku foofule ca diwaan bu port autonome bu euh, Ndakaaru ñu jeexalee ko ak li nga xamante ni moom